waaw déjà xam nga xam nga euh, am loo xam bëgg naa tamit Sénégalais yi comprendre ko que ñun man sama arrestation yi man bu ñu njëkk a dugg prison 2013 euh, la. avant ah 2013 la. d' accord mooy mooy bi Macky affaire jeune de Colobane les jeunes de Colobane. bi bi xam bi bi bi bi euh, ñuy valider candidature troisième candidature Abdoulaye Wade gars yi di manifester Obélix police bi dafa chargé bi conseil constitutionnel ne valider nañu candidature Abdoulaye Wade pour police bi dafa songu foot bi ñu songee foot bi am ay jaawarloo ñun ñëpp ñu fa. am ay xale yu saxante xeer benn policier bu tudd Fodé Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ñàkk ci bakkanam ñu ci ñàkk nañ ñàkkee bakkanam police xëy la lendemain ñuy Colobane jàpp fa ñetti jeunes jàpp benn jeune bu njëkk jàpp muy Cheikh Sénat Mané di ko torturé wax ay tur ñu dem ba jàpp sept jeunes yu dëkk Colobane juste parce que seen seen seen seen crime seen délit mooy dëkk Colobane li ñu def ci crime comme ñu koy waxee léegi ñu torturé ko ñu dem ba gis ay expertise euh, médicale yoo xam ne autorisé yoo xam ne juge d'instruction moo ko autorisé yëpp et tout ñu xool ko ñu gis ni booy ñaate torturé ci ñu bari ñu jàppoon ay enquête sur torture mm-hmm. ay jeunes Colobane ñun ñu ko manifesté ñu arrêté loolu mooy fausse arrestation foofu la moo créé suñu mouvement bi nii sax Rebeus mouvement bi ci biir euh, ci biir Rebeus lañ ko créé ñu tudd ci lañ am idée bi et tout maag sa benn xarit cest problème bi xamal lan mooy bi ñu duggee si kaso gis ay situation situation yoo xamante ni ñu gis injustice justice boo xamante ni xamuñu lii lan la ñu gis beneen Sénégal gis beneen àdduna ay yeneen nit ay jafe-jafe yoo xam ni xel mënu loon xalaat ni nit mi ngi dund lii si kaso loolu moo ñu loolu moo ñu loolu moo animé suñu suñu tax ñu taxaw teg teg mouvement continuer j'étais membre yi si la imam ndaw ñëw imam ndaw aussi euh, ñu yëg ko rek si nekk si mouvement yi comme ñu ngi si loolu di xeex injustice nit woo ma ñu xeex affaire góor jigéen ay góor jigéen yoo doon sëy kaw wax si benn école ñu dem ba foofu nag def fa ay live après am ko mu woon ma yéen a ngi kaw wax mais pourtant y' a pas loin benn imam bu ñu arrêté foofu jiñ ko terroriste may leen fan ñu ma nekk nitu fit la mu ma génnee dama jooy ci pleure foofu nag laa ne vraiment Sénégal après ci lañ commencé xeexal imam bi ñu dem ba gis ni imam bi deful dara boobu ñu euh, fekk ay portable satellitaire ay arme mu yor benn yëpp nekk si ñu nekk si nekk si nekk si ba ba bi bi ñuy arrêté boobu mooy deuxième bi parce que arrestation bi bi bi arrêté peut-être mandat de boobu bi mooy cinquième mandat de donc donc ñun suñu injustice la ñuy xeex ñu gis dëkk boo xamante ni wallaay man sama cas man man moo duggee la ay yoo nga xam boo fa yàgg ba yàgg 6 mois ne dañ laa tooñ nga ay nit yoo xamante ni yow ndax sa bopp yow da ngay fàtte sa problème yow donc dafa am donc kon man man bu ma nee Sénégal bu ñu am na jàmm pour man ku ku jug nga ne yow julit la nga def sa devoir wala ngay chrétien nga am ngëm nga def sa devoir nga wax rek la yàlla tax xam nga ne Sénégal amul jàmm li fi nekk du jàmm. d'accord da ngaa duggul ci kaso bi boo duggee ci kaso bi nga xam ne Sénégal amul jàmm da ngaa xool justice sénégalaise bi parce que injustice day créer ay monstre. d'accord waaw lu tax ñu nangu ko Adja bañal ma ko man. lu tax di wax lii daal. daal di frustration. man ma def tuuti ñu indil ma problème tëj ma ci kaso bi.